dama jug di sant ki may salaam rabbana buur bi tuddu salaam dama jug buur bi tuddu mi doon salaam heure bi war naa jot de. dix neuf heures et demi. li mu wéet na la mu kër ñaari nit. ah déedéet da nga wax joxal caat caat. kat ah caat am mën na aay alxuraan de li nga fi def barki démb moom du am tey. waaw ana soxna benn dog dog na. catam xanaa bala ngaa xel yi caat xel ah lu ma problème. ma ngi wóor la a xel kat mi ngi ñëw. maa la waroon a xel la. tey maa la waroon njëkk na. booy joxe départ taxul nga nga jiite sama kër. tey maa pendagul tey lu ma bëgg rek moo fi am. ba léegi tontu woo laaj naa la ba xam na nga commencé raxasi otoom jël ba léegi tontu woo. waaw. waaw papa lan mooy loolu. mu xew. papa raxasuma wala ñun daa am liggéey bu bees. liggéey bu bees. raxas ko. waaw raxas ko kay papa yow na nga yàq dara. caa da ngay da ngay naan café ba pare. papa ndawul ndànk tey maa feere. xanaa booy ndogu da ngay noot nga ne ma noot. waaye daal waaye daal xëy na si bisaab bi. yow xanaa déggoo noot bi. booy xanaa bala ngaa laaj bisaab naan café. waaw yéen ko bisaab yow tamit. waaw. waaye daal ren xanaa doo ndogu. aywa papa. bu fàttali ñoo bokk. lu ngeen bokk. booy la ngeen bokk. ñoo bokk du jël ci kon. bu ma bàyyi daal la mooy kaana nga doon seet la mooy seet na. waaye yéen ñaar loo leen wax nii sax et puis papa lan moo xew. man ngay laaj joxe en tout cas ndaam fekk na ma ci bëccëg fii ma toog mu ne ma papalee tey dama lay wàcce dépense bi dama lay maay joxe dépense. ka ma joxe a ne ko boo jëlee xaalis. mu ne ma dama ko lijjanti man ko ba xam sa raxas oto ba nga daan raxas dama ko commencé waat mu ne ma déedéet dama ko réglé.

Tutela hedonga. toggul waxuñu la nga liggéey jaay baax. da nga sigg nag damay sinab sama ndog. ñun bokkut ak sa ndogu nday. papa papa saaga wala papa wax may saaga nday yaay la yaay. dafa yu moo la miin. ku ko sama waasi nag xolleel li dem ci heure bi de. ki xamul luñ ndogoo te maa nii laa sama. siggil yow damay sinab. nañ ko xaar. loo wax léegi balaa ngeen di xaajoo waaw yow Thiat. Thiat boo xaajoo gi lan la yow loo leen di xaajoo. Thiat wax leen ko mu leer loo leen di xaajoo yéen ñaar maa ngi am. yow wax ma loolu. yow wax amul solo amul dem côté bi. waaleykum salaam. ñoo ngi fi. sëñ bi kaay nagu. waaw baax na. kaay nagu kaay nagu lu xaw yaa ci jàmm. waaw xam naa. mais ak ci mën na ko. baax na baax na baax na jàmm bëri baax. woon. baax na jërëjëf waroon naa war a ginnaaw jërëjëf waay jërëjëf. ay la daa kii yow lay waxal waxal ak kii. ñi nga ma wax dañ maa fekk defar ay ndogu. waaw. ma jox leen sama xaalis. ñaata nga leen jox defuñu ay ndogu. 5000 francs laa leen doon bëgg defar ay ndogu ci koñ waaw. boo xam ne nekkati defaruñ ko ñoom la. noppi. kenn ci la bokk. waxal ma dégg ñoom ñaar ñii la waaw. kon nag defaru leen ndogu. léegi sama si. Ah, ah ñu ngi jéggalu de nga ne ñaan ñi dañ laa wax lan. dañoo wax ko jël sa làmb bi ngay mel ni looy nii sa biir yi nga wàcc ba sa bakkan bi nii. yow ah, yow yow kan nga yëpp yow. maanaam yow da ah? eh, ma yéen ñaan ñi da may dégg kii li mu wax. eh ndogu li kan tey jii kii li mu wax moom moo am. xam nga dama ne la woon da ngay dem sa kër bàjjan. dama toog sa kër baay. ay dem de. yow sa tànk dootul tegu si kër yow di nga dem sa kër maam ay sa kon euh, kante. duma ko dem ay sa dem. kër gi doo dem de. da ngay dem de. ñu lay toog li ñu li ñu lekk xamuñu fan lay reer. maa ngi rusloo sax. du ma ñu toog di ndaw. sama naaw la nga may rusloo si ma ma ma ma ma ñëw. yow. waaye dem sa kër maam baax oui yaa ko téléphone nekkoon ne dama lay indee daam mu féetewu ci yow di lay wéetal. bàyyi daam koy dund. donc soo ko defaroo leen ndaw ma jël pooj ko defaroo leen si ndaw. waaw sama xaalis ngeen di dogoo. waaw bàyyi leen sama xaalis dëgg. eh dafa ndànk booy. waaw léegi sa konji maa ngi naan. maa ngi naan am naa lu ma dugal